merci d'être avec nous tey dañoo teel a tàng poté ak pap euh, pap ak poté uyu loolu dafa gësam <laughs> kon def naa fi yii yëpp Amina Poté yii nga def loo nii dama lay dolli rek dem naa mag jur naa ay doom yoo xamante ni ñoo mag laay màgget la ma xam nga boobu waaj nga waaj ma waajale la dama laa waajale uyul loolu da waaj ma waaj dama ko dimbali woon ko sama doole dama laa waajale <laughs> mais El Hadj Malick El Hadj bi dafa sell arrêté. waaw waaye même bu turam man mi damaa dem màkk ba ñëw. yow El Hadj nga nii yëpp rafetul. waaw ba yow lii yëpp yaa def yow ndeke bàyyi nag ndeke nag bàyyi woo ko benn gone. ndeke ndigili ndig ndigili cangagu. ndeke ndigili cangul nag ndigilaa ngi baax ba tey de. <laughs> ay golo xamul muy boobu doole te ma ngay boppam kat yow ma peese. waaye yooyu. uy lii yow lii comme guerre sax uy comme ndiglu ndaw li ba pare poteng ci ndigli de poteng nga sëñ uy leen ndiggu alaaji beeg alaaji beeg ndiglu tuuti li petit ndig looloy ndiglu bu sexe